te duma ko booleeg dara. te duma ko booleeg dara. lu dul moom nag. lu dul moom nag. aw ma ca defar aw ma yàq. aw ma ca defar aw ma ca yàq. doonu ma ca dara. doonu ma ca dara. asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum bu ñu teewloo kàddu Serigne Saliou yooyu gën naa firnde li ma wax ci jaamu yàlla.